ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si li mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix suturaak ci ràng ak poche def dara niñ koy baaxu ji defee fajaru àjjuma mooy ànd ak yéen ci arisaala arisaala mooy jataay boo xam ne dañ koy am ak yéen mu jëm ci wàllu fiq mu jëm ci wàllu al ibaadaat wala mu jëm ci wàllu pratique ni ñu koy waxe ci sunu pénc tabarakallahu sunu bind weesu dañoo tàmbali woon nekk ci e, sunnay njàpp sunnay njàpp la ñu doon lim tabarakallahu moom lañu ñu tàmbali woon ndax faratay njàpp jàngoon nañu ko kon noo ci sunnay njàpp bëgg nañ koy jàpp buy tàmbali mu wax bismillah loolu ci sunna la bokk mu wax bismillah ci buy tàmbali jàpp ñaaral ba ci sunnay njàpp mooy soccu soccu ci sunnay jàpp la bokk jàpp ba noppi soccu dóoru julli sallallahu alayhi wa sallam nee na su wañutoon teg ñu coono daf naan bu kenn julli te soccuwut waaw bu kenn julli te soccuwut nga xam ne kon su boobaa bés bi lu gàtt-gàtt jullit bi soccu ci juróom-ñaar yoon mu tàqale ko xetu gémmiñ ak feebaru ay bëñ waaw euh, suñu yaay Aysa daana wax ne sallallahu alayhi wa sallam daana ko wax ne soccu day setal gémmiñ di bégloo borom bi loolu ci njariñam la bokk hadis boobu ahmad nettali na ko an-Nasaa'i nettali ko at-Tirmisi nettali ko waaw kon soccu lu am solo la nee nag daana sopp soccu ci ay barab bu jàppee ba noppi daana soccu su julli suy daana soccu bu jàngal xuraan daana soccu bu yeewoo ci nelawam daana soccu bu toogaan lu yàgg waxut toog lu yàgg lékkut gémmiñ gi xet gi soppi ko mu soccu su ma saana woor daana soccu bu dog jotaan daana soccu sallallahu alayhi wa sallam kon lim daan socc bari na lool noonu nag tubaab bi daf noo wutal lun jàpp ne mën na koo wuutu muy eh, pad yeek ñoom seen yooyu <laughs> xam naa baax na nag waaye daal socc bi moom lam ca man pad yi mënu ko ndax tabarkalla ñetteel ba ci sunnay njàpp professeur mooy raxas ñaari loxo ragg ngay ragg ñaari loxo ci bi ngay tàmbuli ñetti yoon loolu ci sunna yi la bokk waaw maanaam di bëgg jàpp raxasu ñetti yoon raxasu boobu ngay raxasu ci tàmbali njàpp li ci sunna yi la bokk alayhi salaatu salaam daan wax saxaaba ya saxaaba ya wax ko taabiuun ya taabiuun ya wax ko asalafu saalix nu wax nu ko ba yomal xiyaam mooy ku yeewu ci yéen li mu war a njëkk a def mooy raxas ñaari loxoom ñetti yoon ndax xamul fuy loxoom fanaan <coughs> xam naa fi ne jamonoy feebar yeeg ñoom seen yooyu alis bi moom jar naa yaata lool soxna mbayang waaw jar naa yaatal lool moom alis bi euh, ku yeewu ci yéen na raxasu ñetti yoon waaw ndax xamul fan la loxoom fanaan ma mbokk yi bu fekkee loxo bi dafa fanaan ci néeg bi ñu raxas ko ñetti yoon bu yendoo ci kër gi ñaati yoon lañ ko war a raxas bu yendoo ci pénc bi ñaati yoon lañ ko war a raxas ala kulli xaal alayhi salaam joxoñ na foofu lu am solo aljamaa nettali nañ ko waaw waaw tabarkàlla euh, ñetteel bi ci sunna ya almadmadatu mooy gallax ndiku galax mooy dugal ndox mi ci maanaam góox ndox mi yëngal ko ak sa baaraam ci ndeyjoor ak ci càmmoñ am na ñoo xam ni dañ koy yëngal ak seen gémmiñ noonu rek waaye loolu moo tudd almadmadatu gàllax ndiku bu ko wolof waxee mooy raxas gémmiñ gi gàllax ci wolof mooy raxas gémmiñ gi juróomeel bi ci sunne njàpp mooy sarax ak fiiru <coughs> sarax mooy def ndox mi ci sa loxo xëcc ko ak sa bakkan fiiru mooy ñendee ko ko pour mu génn sarax mooy def ndox mi sa loxo xëcc ko mu dugg fiiru mooy nga ñendee ko ko mu génn waaw yombut nag yombut ndax ñu bare bari sarax ndiku moom dañ naan bu ndox mi duggee dañuy soj waaw waaye boo ko defee sojoti def ko sojati du toog boo ko defee te du too soj waaw yoon mu njëkk moom day saf-sàpp ndax seytaane ci sa paxi bakkan yi la nekk nekk sama paxi bakkan suñ paxi bakkan yi ci la seytaane nekk te ndox mi génne kaña day ndox day doon ndox mu bari waaye ndoxam sarta la munta génne kaña li ma bëgg wax mooy tuuti tuuti kii ci bakkan rek munta génne seytaane suus juróom-benneel ba ci sunnay njàpp mooy ràcc sikkim ràcci sikkim waaw bi ñuy jàngale loolu dañoo jàppoon ne góor gu ne war naa am sikkim <laughs> lu am solo la ñu jàngale dañoo jàppoon ne góor gu ne war naa am sikkim ñu ñu sunna si muy juróom-benneel mooy ràcc sikkim kon ñu amul sikkim yaa am problème waaw <laughs> waaw xaw ma sunna soosu nuñ koy defe ñoom xanaa raay nel bi noonu rek ngeen baal ma yéen ñaamul sikkim juróom-ñaareel bi ci sunne njàpp mooy ràcc baaraam yi baaraam yi loxo yi nga ràcc ko def ci ndox baaraam yi tànk yi nga ràcc leen def ci ndox juróom-ñetteel bi professeur ci sunne yi njàpp mooy ñett ñett ñett waaw li ngay def nga def ko ñett ñett waaw mooy sunna si nga xam ne jaraa aleyha al amalu xaaliban euh, ñett ñett waaw euh, juróom-ñeenteel bi ci sunnay njàpp mooy ndey jooral ndey jooral mooy looy def na nga na njëkke droite loolu ci sunnay jàpp la bokk góos ba yàqu ko waaye nag sunna sa lañ bëgg alayhi salaatu salaam daana wax ne bu ngeen di sol ndey jooral leen bu ngeen di jàpp ndey jooral leen bu ngeen di peñewu ndeyjoor leen fabda'u bi bi aymaanikum wala bi mayaaminikum ndeyjoor leen lu nga def rek def leen ca droit ba fukkil bi ci sunnay njàpp mooy bomb bomb ndox mi ak sa loxo ci yaram wi fukkil beeg benn mooy taqale njàpp li taqale njàpp li mooy bul raxas dara dem waxtaani ba mu yàgg ngi ñëw raxas la ci tege dem jëli ndox ñëw raxas la ci tege déedéet da nga koy da nga koy taqale fukkeel beeg ñaar mooy masaa ñaari nopp masaa ñaari nopp def ndox ci sa loxo masaa nopp bi ci biir koro koro ko la ko la di wax masaa ko ci biti fukkeel bi ak ñett ci sunne njàpp mooy guddal njàpp li guddal njàpp li mooy bu dee ci loxo demal ba ca conc la su ko ëmbee moo gën bu dee ci tànk demal ba ca dojar ba su ko ëppee moo gën fukkeel beeg ñeent ci sunne njàpp mooy sakkanal ndox sunne njàpp su daf ca bokk sakkanal ndox ñu ne ha ñu ne même soo doon jàppe ca dex ga sax na nga sakkanal ndox loolu nag ñor wàllu ndox seen óola xawma wala ñooñu euh, moom addis ba war na leen a arrangé lool la sakkanal ndox ay ba yonent bi jàngale sakkanal ndox nu dem ba jamono ndox mel ni mu mel am prix ñu koy jaay facture yéeg a ñëw waaw boo amee fit nag <laughs> ni suñ ba àdduna tukki waaw boo amee fit ni suñ bos ba àdduna tukki tabarkalla alaa kulli xaal bi nee na bu nuy jàpp nu sakkanal ndox loolu ci sunna yi la bokk fukkeel beeg juróom bi ngay jàpp ngay ñaan bi ngay jàpp ngay ñaan waaw bi ngay jàpp ngay ñaan jërul yëkkati sa kàddu ca kaw waaye yaa ngi ci liggéey bu rëy bu ñu tuddee njàpp ngay ñaan ci biir bi nga nekkee ci njàpp li lool ci sunne njàpp la bokk waaw am na ñu daan wax allahumma ixfir lii zanbi wasi lii fii daari wa barik lii fii risqi lu lépp ñu ko dañ ko daan wax waaw tabarkàlla eh, mu ngoog loolu ci sunnay jàpp la bokk maa ngi ci seen jataay waxtaanu fajar mu tudd arisaala ñu koy am par vendredi di ko dégloo ko dégluwaat ba jàpp ne bind bi mokk na ñu indi beneen bind ndax ñoom salaak eh, professeur Arfan ñoom gaa yu bàyyi maam mbay tunkaraak ñu mel ni ñoom nee nañu dañu note kon nag ñu jël not fukkeel beeg juróom benn ci sunne njàpp mooy bi nga jàppee ba noppi nga ñaan bi nga jàppee ba noppi nga ñaan ñaan gi bokk na ca boo jàppee ba noppi nga ne ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ñaan googu boo ko defee ubbil nañ la juróom-ñetti bunti aljanna yaay tànn ban nga ci bëgg allahu akbar yaay tànn ban nga ci bëgg waaw macha allah tabarkalla fukkeel beeg juróom-ñaar ci sunne njàpp mooy julli ñaari rakka njàpp bëgg nañ boo jàppee ba noppi rek nga julli ñaari rakka la sallallahu alayhi wa sallam waxoon noddukatam ba bilaal alxabashi di san góor gu dëgër googu radiallahu anhu waaw bilaal mu ne ah, mu ne ko kaay jege ma mu ñëw mu ne ko dama bëgg nga wax ma yow sa jëf yi mu ne ko xaa ah, mu ne ko jan jëf mu ëpp yaakaar ci li ngay def bilaal néew ko julli tàkkusaan yi néewu ko julli fajar yi néewu ko koor gi néewu ko mas naa saraxe quarante millions wala lu lépp bi laal waxu ko ko daf ne ko daal man daal jëf ji ma gën a yaakaar ci sama jëf yi mooy fu ma mas a jàppee ba noppi rek teg naa ci ñaar rakk yonent bi jox ko loxo ne ko sa jëf jooju nga jiitoo képp ko jiitu aljanna bilaal mu ne am ah mu ne ko kere ba may rañaan damaa jaar Euh, alji jan aljanna di visiter bi ma dégg sa dàll yi di keppet keppet yi di sànn saabu yëpp ne ko doon ko dàq waaw yonent bi ko jàngalekat boobu saabu yëpp ne Bilal doon ko dàq fu nu jàppate ba noppi rekk def ñaar rakk moo tax ci wàllu service su fekkee nu lañ koy waxee euh, nit ki ne ci mbedd mi ba mu yàgg mu mu soxlaa tuur ndox bu jàngee hadis bi day jàdd ci kër ñaan leen ne daa bëgg a tuur ndox wala daa bëgg jàpp ñu jox ko satala mu waaj jàpp julli ñaar rakk door a dem waaye kon su boobaa kenn du ko def ci mbedd malheureusement euh, loolu tomb la ba am solo professeur dama doon lim sunnay njàpp yi waaw ma ñëw ci li ñu sib ci njàpp liñ sib ci njàpp mooy sunna yii ma doon lim mu nekk 17 bàyyi ci benn te dañ koy tere waaw bàyyi ci benn te yaa ko tey dañ koy tere ndax dalay xañ tuyaaba te ab jullit luy xañe tuyaaba ci moom dañ ko koy tere loolu ñu tuddee makruhaat ma ñëw ci tomb bu am solo mooy li yàq njàpp waaw li yàq njàpp di sant sama benn élève xam naa mi ngi may dégg ci njare tubaa Ndiaye làmp <laughs> làmp bi muy gone ndeysaan daa ñëw ci daara ja xam naa mi ngi may dégg wala soxnaa mu ngi may dégg làmp <laughs> ñu ne ati leen ñu jàpp mu ñëw ne ma oustaz ma mu ne ma jàppoon naa démb mu néew tey mu neex na ma jàppoon naa démb ne baax na <clears throat> waaye lii toj njàpp doomu aadama daa am bu naanee fu muy génne bu ree bu naan nga reesee waaye bu lekkee bu reesee daa am fu muy génne ñaar yooyu lu ci génn rek njàpp la toj na wolof daan ko wax tuur ndox walla mu ne tuur dugub waaw ndax wolof ku bari ay teggin la te mën a jàngale te lépp loo xam ne boo ko junjee ñu xam ko maam Cheikh El Hadj Malick la junj ko bu fekkee junj ko du tax ñu xam ko nee jaaral ci digg ba boo noppee laali doom <laughs> boo noppee laali doom waaye wete ñaamu bañ xam li ngay bëgg a wax loolu noonu la ko diine bëgg moo tax mag ñi doon jàngale naan tuur ndox wala ñu ne tuur dugub waaw ko defe ñun ñëpp ñu xam liñ bëgg a wax tabaarkalla ndax alxuraan moo ne aw jaa ahadukum minal xaa'it loolu loolu ay wax teggin lu am solo aw jaa ahadukum min al xaayit bu doon tey nga ne ku jóge ca toilette ya waaw sunu borom cey ku jóge ca toilette ya mu ne ku jóge ci toilette bu ñëwee na jàpp <laughs> waaw sunu borom ndax jóge ci toilette ya da ciy dégg ne tuur ndox wala tuur dugub waaw waaye kenn du ci dégg ne ah boo doon jëlee ak bale nag nangam nangam wax yu tuuti yooyu sunu borom du waxe noonu suñu borom du waxe noonu waaw li mu bëgg wax moom ñépp a koy xam jalla jëlal wa azza kamaalu waaw jàngalekat bi di sallallahu alayhi wa ah, bokk na ci liy toj njàpp mooy kii tuur ndox tuur dugub daa ngelawal waaw tuuru ndox tuuru dugub waaye dafa ngelawal loolu day yàq bokk ci liy toj njàpp waaw eh, njàppit man ni yoog mas yoog wat yu dañ koy toj man ni yu mas yu wat yu dañ koy toj man ni am ndox la moo xam ne day génn ci góor di waral am doom ndox mu mu dëgër la day génn ci góor di waral am doom mas yu day génn ci góor waaw waaye li koy génne mooy xalaat jigéen ba tubayam yëngu euh, yëngutu bu wàccee mën naa am ndox moomu génn wadd yu mën naa am moom tam ndox la moom ki nga xam ne mooy tuur ndox walla muy tuur dugub euh, mu génn ginnaaw ga ñetti ndox yooyu dañuy toj njàpp menn ma nag mën naa toj njàpp ba yóbbu ci sangu ba ca tege ci liy toj njàpp mooy nelaw yu diis nelaw yu diis nelaw yu diis bokkut ak dajjant wala yu ne noonu waaye nelaw yu diis moom day toj njàpp ñetteel ba ci liy toj njàpp professeur ji bi mooy tàqali ko xel tàqali ko xel koo xam ne dafa crise waaw wala mu xëm walla mu màndi walla mu naan garab gu ko taxa nelaw walla tàggoog sagoom yooyu day toj njàpp bu ñeenteel bi ci liy toj njàpp walla bag bi ci tege mooy góor gu li ci biir tubayam ak loxoom góor gu li ci biir tubayam ak loxoom safwaan kenn la ca gaaya ca sahaaba ya rajala anhu daf ne woon alayhi salaatu salaam mu ne alayhi salaatu salaam daf ne koon man massa dakarahu fala yasilu fala yusalli xatta yatawadda man massa dakara dakarahu fala yas fala yusalli xatta yatawadda ku téye li ci biir tubayam buum julliti jàpput bu dee jigéen bu fekkee daa teg loxoom moom tam li ci biir séram du ko tax a jàpp ndax loolu du toj njàppam waaw bind la yu am solo professeur te jara note te itam ëpp na di romb ëpp na di romb ma jeexale ci yi nga xam ne danay xew te du toj njàpp wala boroom xam-xam yi wuute nañ ca waaw mooy jigéen ju teg loxoom ngeen baal ma ci baat bi li ci biir euh, séram loolu du toj njàppam waaw euh, naka noonu deret ju génn te génnul ci lu ñu aada woo maanaam ko fakkastalu tànkam nacc waaw walla puso jam ko baaraamam nàcc yooyu du bokkul ci toj njàpp waaw yooyu bokkul ci toj njàpp bu fekkee jigéen moo génne dara nag te fekk baax la woon walla nàngam yooyu moom leneen la waccu du toj njàpp ak gall waccu du toj njàpp moo gàll gàll ñaare gone ya koy def waccu mag ñaa koy def <laughs> waaw gàll nee nañ gone ya koy def waccu mag a koy def ñeenteel ba lekk yàpp gëléem ca naar ya euh, mëcc buy ci nun walla lekk ndambe ci nun lekk yàpp gëléem ca naar ya waaw ñoom dañoo bokk lu ñuy liggéey yàpp gëléem moo tax ñu bëgg ñu daan wax ne ku ko lekk jàppal ñee ne ku ko lekk bul jàpp nangam nangam wax ja bari ca daal ba ñu mujj gis ne du toj njàpp waaw yooyu daal mbokk yi du toj njàpp bokk na ci yiñ daan wax ne dana toj njàpp ak du toj njàpp mooy xaqataay maanaam reeju kowe waaw reeju kowe alqaqa fi salaa du yàq njàpp waaye da yàq julli waaw reeju kowe mu la ñu tuddee xaqataay loolu daal mbokk yi ay bind la yoo xam ne bëggoon nañ cee ñëw euh, la ci pénc mi ma jeexal kon ci euh, tomb bi mooy lii waral njàpp ñett yëf mooy waral njàpp julli bala ko kenn def na jàpp tawaaf kaaba ga bala ko kenn def na jàpp laal kaamil bala ko kenn def na jàpp professeur noteel ñett yooyu eh, balaa kenn jullit na jàpp su ngànt amut tawaaf kaaba ga baloo kenn def na jàpp waaye laal kaamil bala ko kenn def na jàpp suñu bindu tey ci arisala moo nekk noonu tabarakallahu bu ñu ko dégloo ba jàpp ne mokk na incha allah nu indi beneen bind bu bees eh, bu tege ci bind boobu muy sunu jotaay ñuy am ak yéen vendredi ci waxtu wi tudd a arrisala di ay tomb yoo xam ne euh, ëpp na di romb euh, macha allah ndax aajo woo goo xam ne dañ koy aajowoo te téere yi bind ko am na ñoo xam ne daaw jàngoon nañ ko am na ñoo xam ne mësuñ koo jàng ndax élection yi weesu am na ñoo xam ne ci lañu njëkk a wate ndax ñu ngi door am 18 ans loolu alxuraan di euh, njàngalem diina da koy bàyyi xel bu baax a baax loo defe ne jërte wax rek nit ñu ne nañ ëppoon naa ñàkk a wax ak seen fa rekk te jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seeni këyit bëgg la na firim fàncal xibaar yi ci tubaab firim fàncal leen ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci sunuy poos dara kenn daloon ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tataatu wa wa rahmatullahi wa barakaatu.